dama gis vague bi dama gis euh, dama gis benn euh, vague bi di euh, vague bi am doole quoi bu may gisee vague bi am doole si laa si laa gis affaire bi si laa gis affaire bi si laa gis affaire bi affaire bi di ñëw quoi affaire bi di ñëw ti teer muy ñëw ti teer nag si laa si laa bàyyi ba vague bi beneen deuxième vague bi gën a am doole ñëw ba teer bu mu ñëwee ba teer ba si su ba si plage bi si lañ ko xëcc teg ko. bi ko tegee si après si lañ téléphoné sapeurs yi sapeurs yi ñëw xam naa ni mag la noonu nag mag la waaw jëmm mag la yoro noonu quoi non deewewul fii moom deewewul fii bàgg moo ko moo moo ko moo ko puus mu génn mu génnee ba si booru plage bi si lañ ko xëcc euh, si lañ ko xëcc muur ko bon je suis venu vers 9h euh, non 8h30 maag sama bi ñu ngi gis benn affaire bi flotté quoi moom mu naan buyo la ma ne ko non lii du buyo parce que lii koor la mu ne ma non lii koor la ma ne tànk yi ak bopp bi par la suite si le patron bi woote ne regardez ce qui se passe là-bas quoi xool la moo nekk ci géej bi après ñun si ñuy dem xool ku muy nekk corps tu vois mais il comme mi ngi commencé woon décomposé wu ko waaw actuellement affaire bi daal côté digg la jógee côté port noonu ñëw fii mais sol na yére sol na lépp franchement donc góor la à peu près war na laak trentaine waaw fii pratiquement récemment ya a pas 4 mois am na benn boy bu ñu repêché fii aussi waaw mu noyé fii aussi y' aussi. un an de cela aussi une dame yàggul aussi y avait encore benn boy bu kii ci file yi tu vois si lañ ko repêché mais ça arrive tout le temps franchement. ñun dañu ñëw fi suñu taxawaay mooy ñu pomper corps bi maanaam euh, jël maanaam produit sotti ko ci corps bi pour lépp loo xam ne mun na indi gàllankoor ci doomu adama mu deñ mooy maanaam microbe ñu rey suba bi ñu xëyee le matin la ñuy ñëw secteur bi pour xool ban boor la war a mën a nappee si lañ ñëw taxaw ni si kaw montagne bi xool da l'autre côté gis euh, sunu grand bi gis taxi bi nañu eh, loolu de benn benn taxi la. ma ne ko waa ah, kële de sûrement xam naa fa war a daan nañ dem xooli ba xam biñ ñëwee ñu toll si kaw montagne bi li ñu njëkk a xool si dañuy xool ndax am na nit bu si nekk wala déet mais biñ ñëwee xool xool daal ñu nit si biir bon instant boobu nit ne nit si. bon par la suite la ñu xool fi oto bi jóge xool ay trace am mais bi ñu ñëwee ba mu des ay 2 mètres wala 3 mètres si booru montagne bi gis nañ fa benn coup de frein freinage boo xam ne dafa taxaw te fi pono oto bi yem dañ fa def benn xeer si ginnaaw comme kale comme quoi dañ ko kale mais oto nit newuloon si biir oto bi parce que ba fa nit nekkoon distance bi mu jógee daanu choc bi am si oto bi ak moom mënul résister loolu ba pare di génn oto bi di jaar si si xeer yi di yéegaat loolu loolu ko mën xëy na waa ji dañ ko def ko ko